xanaa lii de kenn du ci waaru lu tax mooy ki ñëpp nangul à travers le Sénégal l'Afrique et le monde entier di kan di baayam Seydi Boubacar Sy xalifa bu tedd ba ak kan ak nag baayam bi toog Cheikh Seydi El Hadji Malick ak rakkam yi Alaaji Mansour ak Alaaji Abdou ak Alaaji Habib ak doomam Jamil ak doomam di toog tey ci xilaafa gi di Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si al maktoum di sunu mag di sunu xarit waaye daal teema yem foofu rek ba sëñ Abdou wax ma soog a commenté naka jëkk si booba tubaab yeenu moom coloniser nu waaye lépp lu ma sa xew ci diine ak ci lislaam ñëpp daw nunu wut si sa kër maam Cheikh Seydi El Hadji Malick ah tubaab yéenu colonisé woon waaye lépp lu nu ma xalaat jëme ci réew mi il faut que nu jël sa kaddu bàyyi Seydi Boubacar Sy xalifa bu tedd ba kii nuy rendre hommage nag kenn la ci diine ji kenn la ci mbokk gi kenn la ci tarixa bi kenn la ci lislaam bi wéet sa nii toog ni la sëñ Mansour def tey ak lan ma wax déedéet looy wax sëñ Mansour ma yóbbu Màkka sëñ Mansour ma may Mercedes be sëñ Mansour ne moom fondement jumaa jee sëñ Mansour ne naa naa jiite jàkka jee sëñ Mansour ne millions yi naa ko joxe kooku mooy ca dëgg-dëgg borom daara ji Seydi Mouhamadou Mansour fi mu bàyyam jéppiwu ko fii mu tëdd maamam Cheikh Seydi Alhaaji Maalik jéppiwu ko fii mu tëdd bàyyam Seydi Boubacar jéppiwu ko alaaji Mansour jéppiwu ko alaaji Abdou jéppiwu ko alaaji Habib jéppiwu ko waaye Seydi Mouhamadou Mansour yaa noonu yàlla taas ci barkeem sunu sëriñ bi sunu xarit ba sunu soppe ba Mansour May ma ne si mu ne Mercedes ba yaa ko Mansour Mbaye ma ne si ma titre foncier bi maa la ko jox Mansour Mbaye ma ne ma ah ndey anta ndax digg na ñaari jabar yooyu dem ñu nu màkk ma ne ko plusieurs fois mu ne dama koy dolli Mansour ma ne si mu mbokk gii ak tarixe bii ak l'islam bii da sam baay sam rek moom laa ci sàmm ba wuyu sàmm baay Sidi Boubacar nag lépp loo ci àddina day am fu mu sës ak lu ko taxawal alal ko ko taxawal mooy gor su baax sii mooy sunu sëriñ bii mooy sunu sëriñ mooy doomu Seydi Boubacar jii mooy turandoo alxaaji Abdoul Aziz bii mooy rakku Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum waaye waxu ma ko Habib waxu ko sama taaw waxu ko Seydi Mouhamadou Seydi Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Seydi Mouhamadou Mansour Jamil waxu ko Seydi Mansour moo ni moo sës man rëkk ci duma rëkk rek la mu Seydi Abdallah Al Amin tarixa bi kër Cheikh Seydi El Hadji sa kër baay yii wallahi si li sama doom ji wax di papa Malick ibnu Seydi Mouhamadou Mansour ni bu ne woon Seydi na ku rekk dina at Al Amin waaye xëy na daf ci jiitu rek ak ay bari ñu ko cay fekk ñépp ngi lay ñaanal koo xam ak koo xamul koo gis ak koo gisul lu lay ñaanal yàlla may li wér ak gudd asi ah fii kii di Sidi Boubacar sunu baay kee tëdd sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick kee tëdd ci wetam di Alaaji Mansour ak Alaaji Abdou ak Alaaji Habib ak Seydi Jamil ak ki ñuy defal tey hommage ak sunu mag Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si Al Maktoum wallahi si taxaw bi nga taxaw kër Cheikh Sidi Alhaji Malick wallahi doo général yaay maréchalu kër Cheikh Sidi Alhaji Malick say doom a ngi cheikh a ngi ni mooy taw Seydi Mouhamadou Mansour Jamil a ngi Habib a ngi ak seeni rakk su amaan lu xew wala lu nu gisoon kon mbir mi du demee nii waaye kii toog ci xilaafa gi lu mat 15 ans ba wuy ji maama Cheikh Seydi El Hadji i woo fekk baayam Seydi Boubacar wallahi si lépp lu xam def na ko ci tarixa bi ak ci lislaam bi ah am na ku ko jàppale nag kan la mooy rakkam ju baax ji xaritam bii soppeem bii di Seydi Abdoul Alamin waaye si du ma guddal Abdou Latif Bakhdori mooy directeur u cabinet ministre des affaires religieuses bu Maroc yàgg na loolu xanaa coow li léegi rek la bari waaye ku ma sa jóge Maroc te Cheikh Sidi Ahmed Tidiane wala jóge ci Rasulullahi doon laaj ci génn kër fooy laaj ana kër Cheikh Sidi El Hadji Malick Bakhdori moo représenté roi ba waaye ka yëlifoon tarixa bi yëpp di Cheikh Taïb nekkoon xalifa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ba mu ñëwee lu mu wax ba mu wàccee ca aéroport ñëpp daw teeru ko dafa ne bala may dem fenn naa ziyaari Sidi Boubacar ah, Si asi fii lu fi mu siigu rek yow la Seydi Abdoul Aziz Al Amine xanaa ma yem fii rek monsieur Abdou Latif Bakhdjouri directeur du cabinet du ministre des affaires euh, religieuses du Maroc vous la parole sunu ki ngeen di gis sunu soppe sunu jarbaat sunu rakk sunu xarit di sët ci kër gi di doom ci kër gi nu miinoon ko lool ak sunu baay ba alxaaji abdul aziz miinoon ko ak seydi mouhamadou mansour miin ko ak seydi maxtaar ak seydi abdul aziz mooy tekki li muy wax muy maxtaar kebe والعهود بهذه الدار التي هي إحدى الدور العتيدة التي رفعت راية هذه الطريقة التجانية السنية المحمدية في هذه البلاد وأنا إذ أحمل تحيات المملكة المغربية وعلى رأسها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الشيخ أحمد تيجاني السي كبير هذه الأسرة وشيخها و ممثله ونائب النائب عنه القائم بأمور الأسرة صديقنا وحبيبنا الشيخ عبد العزيز سي وإلى كافة هذه الأسرة التي أتاحت لنا هذه الفرصة لنحتفي ونجتمع على ذكر رجل تقلد مسؤولية جسد فيها الحفاظ والاستمرار على ما كان عليه الأسلاف من الالتزام بالعهود والوفاء بالعهود وخدمة الدين والعلم والتعليم والخير وإحساني إلى الناس والبرور فنحن بهذا الاحتفاء في مثل هذه الذكريات لا نقدس الأشخاص ولا نعظم الذوات ولكننا نغتنم هذه المناسبات للتذكير بما حمله وبما نشره هؤلاء الرجال من القيم الدينية الإسلامية والأخلاقية السلوكية التي يدور عليها الدين إذ الدين الإسلامي الحنيف إنما هو منظومة من الأخلاق الرفيعة الفاضلة فهؤلاء الرجال كرسوا حياتهم لنشر هذه الأخلاق وهذه الفضائل بل وتمثلها وسلوكها بالفعل أمام الناس ليكونوا فيها قدوة ولا غروة فإنهم نائبون عن شيوخ عظام قدوتهم ورئيسهم وإسوتهم مولانا الشيخ التجاني رضي الله عنه الذي كان على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع خطى سنته حذو النعل بالنعل والخطوة بالخطوة فإذا هؤلاء الرجال وكل إليهم أمر حراسة هذا الأمر والدفاع عنه والذب عنه ونشره وتلقينه للناس فقاموا بأدوارهم إلى أن مضوا إلى ربهم راضين مرضيين بعد أن أدوا ما عليهم ليلقوا عند الله تعالى الكريم المنان الحنان الوفاء الجزيل الموفور وفقا لما قدموه من السعي المشكور جزاء وفاقا قال مولانا الكريم وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان والله تعالى لا يخلف وعده فإذا وعد بشيء حققه وأعطاه فالاحتفاء بذكراهم إنما هو تذكير لأنفسنا لكي لا نحيد عما رسموه من النهج القويم ولكي نتذكر ما كانوا عليه ونذكر أنهم كانوا بيننا ثم رحلوا وأننا لا شك مثلهم راحلون لينظر كل واحد منا فيما قدم وأخر من عمل بين يدي لقائه لله تبارك وتعالى ولينظر كل واحد منا إلى التزاماته التي التزم بها هل وفى أم ترك من ذلك شيئا فمن وجد وفاء والتزاما وخيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فليراجع أمر نفسه وليرجع إلى ربه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن هنا في ضيافة هذه الأسرة الكريمة وفي ضيافة الله الرحمن الرحيم الذي نسأله سبحانه ببركات هذا الجمع لأن جموع أصحاب مولانا الشيخ رضي الله عنه لا تخلو من أنفاس العارفين والصالحين والذاكرين والناسكين المتعلقين بالله فنسأل الله أن يعيد علينا من بركات هذه الأنفاس التجانية حتى نتحقق بجوهر هذه الطريقة وكنها إلى أن نلقى الله تعالى على هذا الوعد إن شاء الله تعالى وعلى هذه الأخوة والمحبة في الله سبحانه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ak docteur Abdoul Latif Al Bagdouri nga xam ne mooy directeur cabinet ministre des affaires religieuses wala bokk ashuun al islamia islamique ak ahbas ca Maroc di ministère bu mag bokk ci wisaaraat yi gën a mag ci almamlaka almaghribiya mu ñëw toogal fii kilifa gi di sa majesté amirul muminin almalik jalalatul malik muhammad assadis xafidahu llahu wa nasarahu wa ayadahu nee na teewaayam fii ci jataay bi moo di ñëw feddali kóllëre goo xam ne moo leen takke ak euh, mboolem kër yi nga xam ne ak mboolem kër ak kër gi di kër maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu muy kóllëre gu yàgg kër gii nga xam ne kër la ci kër yi nga xam ne yàlla baaxe na leen ba ñu yëkkati raaya yi tariqa Cheikh na Tidiane Cherif radiyallahu anhu xam naa la maam Cheikh El Hadj Malick waxoon la laqad rufiat raayaatu uslubi cheikhina fa man shaa fal yumin wa man shaa ankara xam naa dafa baax rek nag laqad rufiat waaye mën naa wax ne laqad rafaatu waaye nag tawaadu am moo tax maam Cheikh Alhaaji Malick waxe noonu tariqa bii nga xam ne muy ab tariqa tijaniya tariqa bu tegu la ci sunna ndax boroom di Cheikh na Tidiane Cherif radiallahu anhu mas nañ koo laaj ne ko ndax danañ la duural ay yukdabu aleyk mu ah, man te ñàkk de ndax na am na ay ahadis suñu teg na sama maam a ko wax te waxu ko ndegam sama maam la ñuy dóoral waxantuma la ak man waaye nag ida sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizaani shara lu ngeen dégg ne maa ko wax na ngeen ko peser ak balance su sharia bu dëppook moom maa ko wax bu dëppoowul ak moom waxuma ko nee na kon tariqa bi tariqa bu tegu la ci sunna la bu tegu la ci alquran la nee na mu ñëw moom docteur Abdoulatif indi leen nuyoo al mamlaka al maghribiya royaume di Maroc ak kilifa ga nga xam ne moo nekk ca bopp ba di amirul muminin di jalaalatul malik Mouhamad Assadis jëme ko nag ci ki nga xam ne mooy kilifa kër gi di xalif général de Tidiane Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si al jaare jaarale ko nag ci rakkam ju tedd ji toog di Serigne Abdoul Aziz al Amin mi nga xam ne mooy loxoom di représentant wuutu ko itam fa tabarakallahu ci famille bi ak mbooleem loo xam ne aju na ci liggéeyu diine ji ñu ñëw itam nag pour mën a fàttaliku dunduk góor gu baax kilifa gu baax koo xam ne rangoo woon na xilaafa gi te mooy yan bi diir bu yàgg wuutu ci cheikh na ahmed tidiane sharif radiallahu anhu di xalifaam kuutaay lu rafet diiru li mu fi toog liggéeyam yépp moo doon saytu ak di ñoŋal li nga xam ne mag ñu baax ñi moom lañ fi yoon ñu ñëw itam pour matal sunu kóllëre ak moom moom sëriñ Mouhamadul Mansour si ñi nga xam ne liggéeyam yépp moo doon liggéeyal diina ji jàngale ak tasaare xam-xam ak rafetal jëm ci jaamu yàlla yi nee na daje bu mel nii bu ñu koy def ñu ñëw di ko teewee jubluwuñ si màggal nit waaw la nuqaddisul ashxaas waaw nee na itam jubluwuñ ci itam jël jëmmi nit rek di ko yëkkati ndax mooy diw déedéet loolu amul solo waaye occasion la boo xam ne pose la boo xam ne ñun ñëpp dañ ko bëgg a baddoo pour fàttali nit ñi jëf yu baax yi nga xam ne sëriñ Mouhamadul Mansour en tant que xalif moom la fi nekke woon ak valeur ak jikko yu tedd yi nga xam ne moom la fi doon jëmmat muy axlaaq islaamiya faadila rafia mu ko daan taxawe fa tabarakallahu di defar nit ñi di leen yar di leen jàngal di ko tasaare nekk ay royukaay nee na ku mel noonu bu fi jógee jaadu na ñu fàttali nit ñi liggéey yu baax yam doon def liggéey yu sell yam doon def ndax nit ñi gën cee mën a roy man cee gën cee mën a ngoy bu baax a baax ndax nee na kilifa yooyu ay royukaay lañu ñoo fi wuutu yàlla ñoo fi wuutu rasulullahi ñoo fi wuutu Cheikh na Tidiane Chérif radiyallahu anhu te ku ci nekk xam na ne sëriñ Mansour xafi eh, yàlla na yàlla yokk leeram nee na kilifa la woon goo xam ne tànkam musul teggi ku mukk ci tànku sharia ni dàll ak dàll di toppante tànk ak tànk di ko toppante sëriñ Mansour noonu la meloon taxawaayam ci diina ji ak tariqa bi yàlla defoon muy kilifa ñu dénkoon ko responsabilité bu jëm ci diina ji jëm ci nit ñi ba yàlla dogal mu jóge fi dem wuy ji seen boroom fa tabarakallahu ànd ak ñu am gërëmal yàlla yàlla gërëm leen waaw jazaauhum inda rabbihim jannatu adnin ba ci radiallahu anhum wa radu anhu dalika liman xashiya te itam nag nee na ku def lu baax lu baax rek ngay am hal jazaau l ixsaani illa xël googu yàlla laajul dafay saxal ne jazaul ihsaan mooy ihsaan fa tabarakallahu nee na nag loolu ñoom ñoo ko liggéeyal seen bopp fa tabarakallahu te yàlla moom lu mu digee dana ko def kon nee na ku def lu baax dana la fay kon sëriñ Mansour def na lu baax yàlla dana ko fay nee ñuy fàttaliku itam seen dund pour bañ a jàdd ci yoon wañu jaaroon tegu ci tànk ak tànk ndax ñoom liñ doon baax baax seen waxtu jot na ñu dem ñu fàttaliku ne kon ñun ñi fi nekk itam ku ci nekk sa bis a ngi lay xaar sa bis dana ma sa ñëw nga dem boo fi nekkee woon lu baax boo demee yàlla fay la lu baax yaa ko liggéey wala sax boo fàttaliku ñii lañ doon def te terewul dem nañu yow nga fàttaliku sa bopp boo nekkee ci lu baax nga sant yàlla boo nekkul ci lu baax nga daw tuub te jéggulu balaa dee di ñëw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku tuub ku def bàkkaar tuub yàgg ko amul bàkkaar yéen a bokk yem attaibu min adamb kaman la dëmb la kon kilifa gi nee na fii mu toog tey bàyyi ko Maroc mi ngi ci nganu famille bi mi ngi ci nganu Serigne Abdoul Aziz Al Amin mi nekk ci kanamu famille bi wuutu fi magam nekkal fi ay rakkam nee na ñi ngi ci nganu dëkk bi ñu ngi ci nganu kër gi ñu ngi ci nganu diine ji di ñaan sunu borom mbooloo mii fi toog du ñàkk mukk am na fi ay nitu yàlla yu nekk ak ñun ci biir mbooloo mi di noyyi seeni noo di jaxasoog sunu yos ñàkku fi ay zaakiriin ñàkku fi ay aabidiin ñàkku fi ñu baax ñoo xam ne yàlla rus na leen te noowu waa tariqa bi inchaa allahu tabaraka wa taala noowu jaamu yàlla la jàng alquran la jàmm zikr la kon ñi ngi ñaan ci barke mbooloo mi yàlla na yàlla nangu lépp te yàlla dool ñu taas ci barke kilifa gi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. barke bi daf doon defal sëriñ bi résumé li fi jaar yépp léegi nag noo ngi bëgg jox sunu kilifa sunu sëriñ sunu xarit sunu soppe. mi fi représenté sunu mag sunu xarit sunu soppe sunu sëriñ Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si El Maktoum xalif général Tijani noo ngi bëgg jox ki xam ni kii daayira yi daja tey ñoom daja ci kanam Seydi Abdoul Aziz Al Amine ak njaboot gi bi mu toogee ci xilaafa gi Seydi Abdou Aziz Al Amin mii def ko seeti ni ko coordination des daayira Tijaan sa baay Alxaaji Abdul Aziz moom a ko dénkoon ak Ceerno Muntaga léegi nag yow yaay xalifa bi yaay xalifa général Tijaan yi mun ko loo bëgg mun dama bëgg ren jii yow ci sa bopp Seydou Mouhamadou Mansour nga ñëw présider ko mun ko loo ma ñaan ma may la ko loo bëgg wax ma ko tarixa bii ak mbokk gi ak lislaam bii loo ci dogal sëñ Abdou man d'accord naa mu ñëw ànd moom mu teeru ko teeru bu rafet ba boobu nag marocain yi ak naar yi xamaguñu kuy Seydi Mouhamadou Mansour xam ngeen ca xam-xam ba mu jàng discours ba kii toog geesu ni ko si tey loolu na ma sa gis waaye jox nañ la fukki paasu màkka koo bëgg yóbbu ko roi bee la ko jox sëñ Abdou wax ko mbooloo ma ma ne ko man nag mënu ma dolli na mënu ma roi bi dolli na ci benn pour yow kon rakkam ji xaritam bi soppeem bi sër ci moom rëkk ca du ko rëkk nekk porte parole Cheikh Ahmed Tidiane si al maktoum sunu mag sunu xarit sunu sëriñ xarit général Tidiane ay Seydi Abdoul Aziz Al Amin waaye kaddu yaa ngi ñëpp yow la ñuy déglu si ngir lan ngir ñoom ñëpp si gisoon ni bëgg la sopp la yaakaar la yan bu sunu yaakaar tas ci yow allahuma salli ala Seydina Muhammadu bu la paro Seydi Abdoul Aziz Al Amin السماء فضلا بين أتينا من سفا كان يدفلني جزاء مولاي شيقي فضينا على يحمي لها جزاء مولاي شيخي شيخي ما على يحمي لها أتاكم أتاكم ما كفى وصلاة فإن نور دارين أتاكم ولا أتاكم ما كفى وزلنا فحقق ما به نطلق سما بين فحقق ما جرى فحقق ما به نطلق

وأصحاب وأصحاب أي وصلي من سار لله وآل البل وآل البل وأصحاب خليفة بيني وسلي من سار لله شيخ سيدي محمد ومنصور نينا لعبد العزيز وإنا أدلوا معنى دهاني جاهد ومثالي ku sopp sëriñ Abdul Aziz defal ni waay Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour nee na najlil wali xutbi zamani wa asrihi ka qiyaami walidihi lkarimi lali sëriñ Abdul Aziz xasunat bil axlaaqu yurshidu xawma wa yuinum fi lxalli وترحالي وآل البل وآل البل وأصحاب وأصحاب أي وسلم أنسى ليلى déglu nag man bii gis te bég na de ci xasida boobu nga nettali ko mu jëme ko ci rakkam ju baax ji waaye bég na yëpp ci sa way moo ma daax Mansour man ko si mun ma yaag rawaan bëgg naa ngeen di fekk sama mbooloo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 سيدنا محمد نبي المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين حضرات سادة شرفاء المحترمين أحفاد شيخنا أحمد بن محمد تجاني سعادة والي المقاطعة أصحاب المعالي أعضاء الوفد الحكومي الممثل لفخامة رئيس سيد مكي سل والمرافقين من النواب والمسؤولين معالي دكتور أخي وحبيبي رئيس ديوان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الممثل لصاحب المجادة والمهابة والجلالة سيدي محمد السادس حفظه الله ورعاه حضرات سادة الأكارم من الأئمة والمقدمين والعلماء والرؤساء الدوائر والأحباب الأوفياء الصالحين حضرة ابن البار حبيبي وأنيسي شيخ أحمد التجاني محمد المنصور السادة الأفاضل أعضاء دائرة المنتدبين لتعليم علوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه ليعانقني سرور عظيم فرح كبير في هذه المناسبة السعيدة التي يتزاوج فيها حدثان مهمان عند أحباب الحضرة وأهلها هما الزيارة السنوية li daairatil muntajibin wa dikra al ula li wafaati cheikh Mouhamadin Mansour wa bi fadli hadihi al muzawaja asabna suurayni bi ramyatin waaxida wa wafarna li anfusina waqtan wa jahdan ثمينين في هذه الجلسة لهذا عندنا مقترحت علي فكرة إقامة ذكرى منفصلة عن الزيارة وافقت غير مطمئن البال خوفا من ولادة ظاهرة جديدة lam takun mahudatan fi saaxati hadihi alxadrati almalikiyati sunniya ala wa hiya alixtifal bi munasabati alwafat allati likulli waxidin minna fiha nasibun la yunazicuhu fihi axadun كما قال الشيخ محمد المنصور إني تيقنت الأقدار تلقانا أن المنية لا تزال تغشانا ولو عقبناها منفردة مع قرب العهد من وفاته لكانت بدعة محدثة في كل الوفيات لذلك عندما حصل التراجع عن تلك المبادرة تكللت الجهود بالنجاس الملموس في هذا اليوم المبارك السعيد فشكري لأبنائنا البرر على قيامهم بهذه المواقف النبيلة أما اليوم أيها الحضور الكريم falastu huna li uhaddisukum an dikriyatin maadiya tanimu an aatifatin jayaasha saadiqatin naxwa axin aziz wa jalisin muannisin xadiisuhu mufiidun wa basamaatuhu aaliyatun jamila talcatuhu xasana wa xuduruhu yamla'u nufuusa bahjatan wa surura wa jalalatan wa taqdira wa lastu huna li ulqiya muhaadara xawla shaxsiyati cheikh Mouhamadin Mansour ذات الأبعاد المتنوعة أو حول حياته الحافلة بالأعمال الإسلامية الجليلة المتمثلة على سبيل المثال لا الحصر في مدارس أقامها ومساجد بناها ودموع المعوزين التي مسحها وأفواه البائسين التي أعاد إليها بصمتها وآمال اليائسين الذين التي أحياها faqad araxani an dalika al asatizatu lkiram fi buxuusihim almustafida fa jazahum allahu xayran wa innama ateytu li anqula ilaykum taxaya alxalifa cheikh ahmed tijani si almaktum alxalifa alaam liltaifati tijaniya wa li ulfita intibahakum إلى الدروس التي يمكن استنتاجها من خلال هذه الحياة الشخصية العظيمة ذلك أولا أنه وضع الحزام أولا في صلبه ليكون عمامة غدا على رأسه وثانيا تعلم في صغره ليكون عالما في كبره wa thalithan allama liyakuna mualliman fa sanaa bi taalimihi rijalan wa kawwana uqulan wa taxarraja min madrasatihi alfarci lati imtidaadun limadrasati jaddihi al ummi almawsuufati biljaamiati alshacbiya taxarraja minha nuxabun min al asatidati al ajla wa ulamai shariati wa tariqa wa xaamisan axsana muaamalatahu ma annaas wa xaalaqahum bi xuluqin xasanin fa kasaba wuddan xadiisa xasanan ala xaddi qawli shaair fa innama almaru xadiisum baadahu fa kun xadiisan xasanan liman waa wa bi hada alqadri aktafi wa audu fi alxitaam qailan li duyufina alaisa alqaadimina min almamlakati almaghribiya alsharifa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi baytikum bayna ixwatikum muhammilina bi taxiyatin abiqa wa tashakkuraatin xaara wa dacawaatin xaalisa li saaxibil jalaala wal mahabba sayyidi muhammadin saadis wala shakka anna xuduurakum fi facaaliyaati haadihi lmunaasaba wa wuquufakum ila jaanibi l-usrati l-maalikiya yujassidu aw yujassidaani cumqa rabaabiti والصلات ومتانة العلاقة الطيبة التي تربط بين الأسرة المالكية وبين المملكة المغربية الشريفة وشكرنا موصول إلى معاليكم على ما توليه لنا من اهتمام بالغ واحترام كبير لتوثيق وتعزيز عرى الأخوة والصداقة والمحبة بين الأسرة والمملكة وكذلك نخص بشكر عميق لفخامة رئيس سيد مكي سال على ما قامت به حكومته من جهود كبيرة تذكر وتشكر سائلنا الله العلي القدير an yuwaffiqa aljamia ila ma fihi salahu alibadi walbilad wa shukran liljami wa salaamun ala man ittaba alhuda wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi yéen ñëpp ñu fi teew ci ay bokki taalibe ak fu ngeen mën a jóge ñu ngi di nuyu ñu ngi leen di ziyaar ñu di masawu ci seen coono déplacement waaye borom la rek bu ñu koy fay ndax kenn ku nekk ci ñun mas nga xewle sëñ Mansour bàyyi soxlaam mu nekk xewu jàmm walla mu nekk xewu naqar mu bàyyi soxlaam ñëw ba fa nga nekk massawu la loolu moo tax bi Habib ñëwee ni ma dañu bëgg a def benn journée jagleel ko góor gi jagleel ko ko jagleel ko ko ah dellu ko njukkal dama ko ni waaw na ngeen ko seet su dul yàq rekk baax maam ak moom ak yàlla dong ci sama néeg ma ko bi ci des na ngeen seet beneen tur bu dul anniversaire ma ni ko ndax boo demee ci sa diiwaanu maam sëñ kër Si danga fa fekk lettre bu mag mu bind ko te booba Cheikh El Hadj dafa nelaw ba ca déwén sa mag ñi ak njaboot gi bëggu ko defal benn anniversaire fekk ma nga ca ndar mu bindi lettre bu rëy boo demee ci diwaanam daa ko ci fekk ni ku ko fi def rek bu ma ñëwee daa joteeg yow ndax moom yàlla moo ko bindoon mu simple ci wàllu wàllu dëjëg wàllu néew ak wàllu yu deme noonu màggal bésu ku dem mu dellu si nga di ko màggal yooyu sëñ Babacar Si moom def ci sensible loon boo demee ca Tëngéej aawam ma nga ca sëg yi ca caw leen te dafa doon faju rek yàlla indi dogal ba moom ba mu ñëwee mu ni kenn du ko yóbbu Tiwaawan kenn du ko yóbbu Luga nañ ko suul foofu nit fu mu ruuxam rek nañ ko fa suul ñu jéem jéem waaw te ñu ko yóbbu Tiwaan mu ne ëpp naa def te ñu ko yóbbu Luga mu ne ëpp naa def ba demee soxna Faatumata Si mi taawu Seydil Haaji Malick mu ngi ci armeeli Luga ya bañ ko waxee def ne nañ ko def foofu fi nit ñëpp tëdd te mu ëpp valeur parce que ku ñëw ci armeel yi daa ñaanal néew yi dana ca bokk kiñ ko dénkoon muy ñaareelu soxnaam juróom ñaari weer la am ci loxoom yàlla moom ko mu ni nañ ko yóbbu ci armeel yi rek moom noonu la ko yàlla bindoon ci wàllu ku fi itam ah gan ñi de daañu xaw a bari ba il faut ñu jënd jënd nag walla xar pour toggale ko gan ñi an mu ni ëpp naa xalaat kii de ba noppi jarul ñuy rey kii dund <laughs> ngi fàttaliku soxna Roqoy Ndoy radiyallahu anha soxnaam la woon mooy yaayu Serigne Habib ak Sidi Ahmed si ba ci Richard ba mu nelawee nit ñi dañu bari lool ñu ah tey nag de il faut ñu jënd nag mu ni ëpp naa xalaat ki dee ba noppi jarul ñuy rey ciy dund dem leen ci marché rek lu ngeen ko fekk ngeen jënd ko ñu dem ci marché booba Dakar melul nii mu mel gisuñu dara ñu dem jënd ay xar ni waaye góor gi bu mu nu rey waay dem jënd ay xar yóbbu ko ci kër góor gi ëmat jaxate rey ko fa fees ko tojat ko def ko ci ay beñuwaar ak bool yi ñëw ni ko ah, lii de lañ fekk ca marché mu ne waa gisoo bu ngeen góorgóorlu rek am ndawal kay <laughs> noonu la ko yàlla bi doon eh, anniversaire yi bi ñu ko tuddee man leen déedéet seet leen beneen muu parce que moom masu ko nangu nanguwu ko ci Seydi Hadji Malick nanguwu ko ci benn soxnaam wala benn mbokkam noonu la ko yàlla binde woon même Sidi Ahmed si mi taw Seydi Hadji bi mu nelawee pension yi soxnaam yi waroon am daf ko gàntal am ni ëpp naa def ëpp naa def fay pension ëpp naa def loolu naan sa deret la moo tax nag bi ma Habib waxee loolu ma ni ko nañu seet beneen tur bu dul euh, anniversaire ndax samaam nangu ku wu ko woon te lu mu bañ rek jam-jamu sharia lay lay bañ ma ne ko kon nag seetal bi mu dellu seen nag ni ma seet nañu pour def ko benn hommage ma ne waaw kooku moo mën na nekk parce que wocc na fi nag luñ ko mën a rendre hommage waaw tabaarakallah ñu nekk ci nekk ci nekk ci yàlla dogal diggante bi itam sama yaram xaw am tuuti yëg-yëg ma dem seeti docteur yi waaye ba ma demee itam asmalik bu Serigne Cheikh moo ma téléphoné ni ma góor gi daal nee na bul tarde bésu sëñ Mansour bi na nga ñëw teewe ko encadré xale yi loolu moo tax ma dagg sama traitement ñëw te itam li tax mu wax ko moo ko xam bu ma ko tardé woon rek ñu bari ci Sénégal dem safar ndax daañ ci wax lu seen yoon nekkul lu tax Abdou Aziz teewu ko ah mu ngi ko débale ko ak ah kii ne Abdou Aziz ah moo tax mu ni ma bu ko tardé bi ma ñëwee ma téléphone maam as ma ni ko waxal xalifa bi ni ko ñëw naa mu ni waaw ci ëllëg sama teew ni ma waaw nee na bul fàtte lim la waxoon nga dem encadré xale yi loolu tax ma dellusi xam ne dëgg dafa am bés Sëñ Babacar Si radiyallahu anhu ñu di ko décorer déedéet dafa am benn mbedd bu ñu tuddee woon Seydil Hadji Malick ca Thiès commandant de cercle bi fa nekkoon nag lami ñaan ko mu ñëw dagg ruban bi ah, mu gàntal waaye ñu ne ko ah comme moom tubaab la te xër ci Alaaji Malick rek moo tax mu di ko tuddee mbedd mi ñaan la nga ñëw teewe ko te nga dem rek mujj gi ñu mënanteeg moom ba mu ni waa baax na ba ñu demee nag ba ñu tu dagg ruban bi keroog Serigne Cheikh mi ngi sol benn complet bu noir bu rafet teg ci jàllaab bi bu weex tal ak benn bonnet marocain ñu ñëw na toog ci salle bi góor gi seen catu pantalon bi ba nu ñëwee lim ma jëkk laaj waaw dafa mel ni Cheikh tubéy yu gudd yooyu la soloon <laughs> ma ni ko waaw la soloon mun ma wax ko bum ko ko soloti ma ñëw ma ni ko su mbàppa gis na sa tubéy ji ah, sa pantalon mun lu ci wax ma ni ko nee na bu ko soloti mun ma ndax dafa araam ma ni ko ah xawma ci dara wax na ma rek wax naa la mun demal laaj ko ko man ko man kay laaj duma ci fekk yo- yónni na ma daal wax naa la waaye ma yëg si rek góor gi mel na dafa dégg bi doon discuter dama dugg si rek mun wax nga Cheikh li ma la waxoon ma ni ko waaw mu ni wax ma ree mu ni lu wax ma ni ko neen ndax dafa araam mu ne ah déedéet araamul waaye xam nga Sénégal mii nañu doomu sëriñ di ko sol bu ko solee mën nañ ci wax lu leen yóbbu safara mu dawal leen safara soosi rek laa ci jublu waaw wax na dëgg ndax Sénégal rek lañ lu seen yoon nekkul xamuñu nu mu demee ñu sos ca wax ca lu ca amul waaw loolu mooy jikko waa Sénégal moo tax mu ni bu mu ko tàddee ma ñëw ba ñëwee fekk naa leen ci organisation bi sama njaboot yëpp a nga ca la ma amit ñu xinaa ko jox leen leen boole leen ak li ngeen am ñu continuer organisation ba tey euh, mu di nag bis bu am solo ndax dafa dajeek bis bi nga xam ni sëñ Mansour radiyallahu anhu ni ngeen ko waxe euh, mook Serigne Cheikh juróomi weer lañu magante sëñ Babacar Sy bi ñuy toll ci jàng fekk na ko mage ba jàng leetul waaye euh, soxna su baax sii ci wetam soxna asukan ni ko man daal metti na ma lool doomu soxna di fi ñëw di bind ay leetar ak ay defi xasida te sa doom du ko tontu bàyyi nga jàngale waaye il faut nga dellu ci mu daal di dellu ci njàngale waaye sëñ Mansour sëriñ Cheikh sëriñ Saliou Sarr ñoom ñett rek bu leen di jàngal nag day mel na kuy dem xare ndax day takku takk ndigli mbubu grand mbubb mu fas ko ci gannaaw woo dugal ca njàng ma baatin ndax yàggul te lu doomu soxnay xam rek xam nañ ko ñu mu doon ñaari daara daara sëñ Mansour daara sëñ Cheikh sëñ Cheikh jékki-jékki daw daara ma dem Dakar wax ak moom ma ni ko mais ñun jàngatuñu te yow lañ nu boole loon mu ni waaw dinaa ñëw ma ñëw ci sama papa ma ni ko ñun jàngatuñu ah mun ma jàngatuñu mooy lan ma ni ko Cheikh mi ngi ñu booleel toogul day dem Dakar mu ni ba mu ñëw ba seen Cheikh ñëwee xam nga lu mu moom mu ñëw ni ma yow da ma doon boole góor gi <laughs> ma ni ko déedéet waaye dañoo bëgg a jàng mun ma leen rekk tax ma daw njàng mi sëñ Mansour ubbi daara mu ubbi daara taalibe dootuñu am jàng ci fenqale ñaari daara yi loolu ko tax ub am daw mu ma xam naa kër gi dañuy daldi def ko wujjaleeg kii jaar fii kii jaar fee mu ni ma loolu nag du ma ci fekk su ko defee na kon tabaarakallahu mu di bés bu am solo ñi mu jàngaloon man mi ca la bokk bari na ay téere yoo xam ni suñ Mansuur si moom ma ko jàngal yàlla dogal ñi mu jàngaloon dem ba ci biir ñu ni ko dañ la bëgg a wutal bés bu ñuy ñëw daje muy sa bésu rendre le hommage ci ni ñu jàngale mu d'accord ñu ni ko jox ñu tur mu jox ñu turu daairatul muntadibin mi taalimu ulumi diin at mu jot fu taaliba nekkoon rek daa bàyyi la ngay def ñëw ñu dajeeg moom mu sànni leen ni kàddu encouragé leen wax nu nu nu war a mel bu nu fa jógee bee ndeysaan ci mujj gi yaram wi mayetu ko mu def ko waaye mu ni ma waaw bu ñu dajee rek danaa ñëw toog waaye yow nga waxtaan ak ñoom su bés bi jotee ma ñëw moom la Pape Faye doon wax dafa am bés ma dem moon am fu ma demoon dama demoon benn mission te waxtu wi jot nag te ñoom ñu daal di bëgg profiter mu nu kenn du ko def te ñëwuma daal di jàpp boobu pastif rek ñu ba ma ñëwee nag muy xaw nga guddi an ah. ma ni ko waaw waxtaan ba moo xaw yàgg waa kon demal waxtaan ak ñoom su demee bay jeex nga yëgal ma ko ma ñëw ñaanal leen dem nag ba tey mu jóge fi waaye kóllëre gi ba tey mi ngi fi ñu ne ah sëñ Mansour de nekkatul waaye nag ziar bi moom danañ continuer di ko def bi ñu continuer di ko def itam maa nga ak ñoom ca biir maa nga ak ma woo Cheikh Tidiane mi taw mu toog ci sama wet ma waxtaan ak mbokki taalibe yi fàttali leen ñu ñaanante yàlla dem bi ñu d'accordee nag ci def li ñuy tudde anniversaire ñu ni noonu nañ ko dugal ci biir ziaru daara ji buñ ko ci dugalee tudde ko neneen nu dul anniversaire ndax anniversaire moom suñ Babacar Si daf ko daf ko asaf complètement ci mbiru kër gi ñu dugal ko ci nag ñu daje lancer appel pour ko ku gëm Sëñ Babacar ak Alaaji Malick rek ñëw fekke ko alhamdulilah ñi mën a ñëw ñëpp teew nañu yal na leen yàlla fay mu di bés nag bu am solo benn jataay la waaye lu bari dana fi fajoo tey mu nekk zikra boo xam ne nag ni ko Abdou Latif yi waxe ñun duñu màggal nit parce que nit ku koy màggal foo koy teg ah yonent bi kay fi la màgg yam te bu ñu ko defee rek sharia daf nuy jam màggal nit te Alaaji Malik kërbaas gi mu sànni mooy tànk masu ko teggi ci tànk yonent bi sunna la mas di sàmm yuraayi sunnata nabi sallallahu alayhi wa sallam min al bidayati ila nihaaya kon du dem ñu di fi loo xam ni ay doomu soxna danañ ci mën a dëgg jam kër gi moo tax ñu ni noonu nañu wut beneen tur te itam def ko nag ci façon boo xam ni du génn sharia euh, bi ñu demee itam doon naa ko déglu ba xam ma ne ah xale yi daal yàlla bu ñu xir ba sas ci kër gi loo xam ni day génn sunna nit ñi di ñu ko jame te doo mën a tontu parce que na ku ko euh, génni ñu dëggu ko rek mënatoo défendre sa bopp loolu moo taxoon nekkul woon lu ñu miin ci ëttu Seydil Hadji Malick bàyyi sunna surtout affaire u dee affaire u dee moom ni mu ko tërale woon sax mari di tali waaw moom dafa am nu mu ko jàppe woon rek pour këram yëpp tënku ci sëñ Babacar kër ñëw nag gën koo gën koo da dangal nag moom euh, li arrangement yi di gëmmaale sax moom nangu ko mu ni bés boo xam ni nag euh, kenn ku ne am nga ci cër ndax li ma waxoon général Boubacar Wade keroog bi ñu ko rentré ca hôpital principal euh, def opération bi Cheikh Tidiane mi moom ma téléphoné ma góor gi de dafa amoon lu mu yëg ma sàcc ko indi ko rek docteur bi ni il faut ñu opérer ko immédiatement man ko est-ce que def ngeen ko mu ni ma waaw ma ne ko oh waru ko woon def nga waroon bàyyi ba ñu jël dispositif yi ñu war a jël yëpp mu daal jël suma oto dem ndeysaan ñëw fekk mu ngi tëdd mu commencé wax ak man ma ni ko déedéet déedéet bul wax ma woo nag euh, docteur wadd Boubacar Wade ma ni ko euh, kii tëdd yàlla moo ko def mu nekk nitu nit ñi ma ni ko su feebaree ku ne da koy bëgg a seeti moom itam day bëgg ku ne bu ko seet see mu gis la ma ni ko waaye du feebar bii nag bii dafa sérieux ma ni ko bul bàyyi nit ñi di yegsi ci moom loolu rek laa la bëggoon wax mu ni ma laaj naa juróom-ñetti soldat ñi ngi ñëw ñoo koy garde man ko kon nag sabar fala nekk ba guddi ma door a tàggoo ñëwaat mu di nit koo xam ni nag yàlla ko may li mu am mais ak itteem dafa am itte sëñ Mansour sëñ Mansour dafa bëgg ñëpp ku bëgg ñëpp nag ñëpp bëgg la loolu moo tax toujours ci bis bi ñu ngi ci sàmmaale sos bidaa ci biir xadara bi gis nga même lenn njabooti xadara bi génn àdduna ñu suul leen fii ci gannaaw man wax naa barki démb bu ma ni erreur mas ma suñoo def erreur bu gën a màgg boobu wax naa ko bërki dem man leen dañ leen waroon wutal palaas ci armeel yi defar ko ba mu baax ku bokk ci fami bi rek bokk ci famille alxaaji Malick soo génnee àdduna ñu suul la foofu man leen waaye bu ñu koy fii fii ci gannaaw jumaa ji bu yàggee day fees te kon day nekk ay sët te boo fi xasee def yaay yaayi diw ak maami diw yaayi diw ak yaayu maami diw meneen day da koy dal di da koy réclamer man leen bu ñu mënoon am pexe bu ñu ko mën a régler ba noppi bokk ci waxtaan am famille dindi leen bu jekk buta leen place ci armeel ya ma leen moo doon gën wax naa ko bërki dem ndax yooyu yëpp ay xeeti bidaa la te dama amoon benn tante sama rakku yaay la woon ndeysaan soxna su gëmoon diine la ku amoon diine la comme ñun fële ca kaw la suñu famille ku gaañu dañ lay suul foofu ci jumaa ji am na fa benn ruq bu nekk ca gannaaw ma ñëw seet ko mu ni ma maa ngi lay dénk leen su ma fi jógee bu ma kenn suul fii ci gannaaw jumaa ji nañ ma suul ci armeel yi mun ma gis nga buñ la suulee ci armeel yi ku dugg si ziar rek ñaanal néew yi nga jot ci sa wàll buñ la boqee fii nag dañ lay fàtte kenn du la ñaan muy wax bu am solo dañ ko def titre rek mais du titre dem ci armeel yi moo gën te mën wax naa ko tey boo demee fu mel na Aynu Mahdi fi ñuy jóge nekk na fa gàllankoor bu rëy parce que bi président de la république bëggee defaat al masjid Cheikh Ahmed Tijani bu mag fu ñu laaj rek ñu nii suul nañ fi nit fu ñu laal suul nañ fi ba dañu mujj wut place bu sori def ko fa te buñ ko deful woon duñ ko ah, aada la rek aada la mais teguñu ko fenn man maa leen ko wax Euh, ñuy sant nag bu baax a baax njaboot gi mooy njabootu suñu Mansour di suñu njaboot Cheikh Tidiane nekk ci seen kanam di seen mag ma ni nag jottali gi ma jottali ko kàddu ñëwuma fi pour di leen wax ay affaire yu passé ak yu yërëm sëñ Mansour nii la daan doxeek sëñ Mansour nii la daan mayeek ndax loolu yëpp yàlla taxoon mu di ko def di mbokk mu baax nag sëñ Mansour mbokk mu baax la ànd na ak moom ba ñu xëy denc ko masuma ko wor loolu xam naa ko sama digganteek yàlla keneen nag loo ci xalaat wax ko sa affaire la sa sa affaire la te maa ngi ko denc maa ngi ko denc te dana am bés bu ñu bokk taxaw suma la baalu rek doo dem su ko defee noonu la ñu yàlla baloon man toujours lii yoon rek laay défendre maag Cheikh Tidiane ñoo bokk ndee ak baay mais am na lu ko mag ñi defal ci tariqa bi lum ñu defalul ñun man xam naa ko suma papa am na lu mu ko defal ñetti lijaasa woona ko ñëw tisbaar julli juma ba ñu futti mbubbam sànni ko ni ko ma defal la li ma sama am defaloon yooyu yëpp ay cër la waaye bi xaw xaw amee mañ ko ah attention kër gi dafa am ni ñuy doxale ku mag rek yaay jiitu mun ma lii laa am ci cër ma ne ko waaw loolu baatin la ma ni ko bi moo di ku mag rek yaay jiitu te man loolu lay défendre loolu lay défendre ñand na ko alxaaji Abdou Aziz mu baax ma moo ma ni woon demal toog ci wetam lu mu bëgg nga def ko man yàlla bindewuma may ñiitu dem ak di dellu si waaye yow man nga ko moo tax demal toog ci wetu alaaji abdul aziz lu mu rek nga def ko man waa kon alhamdulilah bi fi alxaaji abdul aziz jógee moo bind benn wasiya ni sëñ Mansour la fi teg keroog ba mu nelawee euh, sëñ Mansour téléphoné ma fekk ci nim ma waxe nee na alxaaj abdul aziz dafa yónni ndey safi ci moom ni ko demal ca mansuur nga wax ko ni ko na ma demal ca raw du maamam mu waxal ma ko nangam ak nangam bu fa jigee mu dem ca raw du baayam mu waxal ma ko nangam ak nangam ne ma dem def ko ba noppi ma ni eh waaye naa foofu dem Dakar ay rendre góor gi compte ne ma ñëw fekk ko ci kawlal bi mi ngi toog ni ñaa ngi wër mu ni maa ni ko dama la doon rendre si compte rek la nga ma waxoon ci Seydi Hadj Malick ak sëñ Babacar si def naa ko mu ni ma man tam am na benn wasiya bu ma def ak benn xasida bu ma def ci yow pour tagge la ko daal di wax Pam Maxtaar wan ko jàngal ko ko Pam Maxtaar jàng ko sëñ Mansour ni ko waxuma góor gi waaye yow danaa la décorer su ngoonee na nga ñëw fekk ma ca golf ma ma décorer la nee bi ma ñëwee ma gis ni golf dafa sori ma daal di woo Cheikh jox ko deux cent mille francs ak benn grand mbubu nu ko demal seeti euh, Maxtaar Kebe nga jox ko ko mu ni bi Cheikh Tidiane demee mu téléphoné ni ma ah man de ñëw na ma fekkuma ci kër gi kenn ndax dañu wax ni sama maam bi nga fi jógee rek dafa daal di am benn chute ba yóbbu nañ ko hôpital mu ni ma ma daal jël sama oto dem hôpital même bi ma ñëwee xàmmeetuma ma kon nag dalal di ñëw dakaar ma ne ko mais guddi na mar bu bàyyi ma ñëw xam feeg suba dara dana xewandeer ma ne ko magum yàlla la nag yow tam du dee noonu rek subitement man kii fa mu préparé ko ma ni ko mais guddi na te maa ngi door a yegsi waaw baax na suba teel ma xëy huit heures Dakar la ma fekk ma ñëw hôpital principal moom fekkoon ndeysaan mi ngi tëdd waaw léppam di leer ma ñëw ndeysaan woo ko woo wuyuwul mi ngi tëdd dëgg jàpp njàmbal Maodo wax papa doo seet sa sa xarit Abdul Aziz nangam nangam waaye mu ngi tudd ni pat ma daal di Maodo kon maa ngi dem Tiwaawan léegi te ñëw boobu dama doon jël ci mbubb mu ma sol toog fa ba xam bi ma ñëwee vers quatre heures président de la république woo ma Abdou Diouf ni ma demoo Dakar seetu góor gi ma ni ko si léegi laa jóge dakaar mu ni man demoon naa fa léegi ànd ak Elisabeth ma ni ko man maa ngi ñëw dama doon jël sama yére rek waaye maa ngi ñëw mu ni ma soo demee na nga seeti général Wade dana am lu mu la wax waaye bu ko wax kenn nag ma daal di awaat yoon Dakar ñëw jubal hôpital seetaat góor gi ma mi ngi tëdd rek jàpp njàmbaru ma denc général Wade mu ñëwoon na fi waaye li ñu mujj waxtaanee daal mooy góor gi rek lay nekk ma dellu mu woo ni ma dem nga fa ma ni ko waaw mun ma ndax danga fi mën a ñëw ëllëg ci onze heures ma ni ko waaw dinaa ko man man na nga fi jaar ci ëllëg si onze heures ma dem man ma ah góor gi feebar na ma ne ko waaw ah, yaram yi da xaw na tàng mu ni ma man dama waroon dem tey xaw ma fan ban dëkk waaw Gabon waaye maa ngi ñaan yàlla ma lu koy dal yàlla bu ko dara dal sax noonu la ko waxe waaye lu koy dal ma fekke ko ma ne ko ah, waaw boo demee ca Tiwaawan bàyyam bu tëdd baa fa tëdd te moom moo ko ëpp ay at magam ju tëdd jàng fa tëdd te moo ko ëpp ay at kon bu ñëwee ci moom it danañ am fuñ ko mën a teg mu ni ma bu fi jógee ku fi war a toog ma ni ko Sëñ Mansuur ndax noonu la doon doxe ca mat ñi ba léegi ku mag rek yaa fi toog ma ko surtout moom am na niveau yëpp ma ni ko ci xam-xam spiritualisme ma ni ko ci connaissance ma ni ko kon moo fi war a toog mun ma est du am opposant ma ni ko bu ko amee du am njariñ ko du am njariñ ndax duma ma ci ànd ma ne ko li fi mag yi bàyyi rek man loolu lay défendre li si sama yoon nekku ci yàlla dogal mu dem góor gi nelaw gannaawam suñu moom su téléphone ma vers cinq matin ma góor gi de yàlla def na ci di gën ñu ngi ñëw man ko baax na kon man maa ngi leen di néegi ca jàkk ja waaw ñu ñëw nag indi ko ndeysaan waaw ñu defar ko yóbbu ko dénk ko yàlla suñ man su toog bi mu toogee man gis naa ni xaw na jaaxle tuuti ma ñëw fekk ko ci néegam ma ni ko waaw yow de daf mel ni démb ba tey danga nga xaw jaaxle donc mi xanaa xamoo ni mag ñi la ko jox ñoo la koy jàppale ma ni ko te man mii danaa la jàppale mille pour cent ma ni ko kon taxawal rek ñu bokk taxaw diis na waaw mun ma kon nag en avant loolu la ñu ànde ba du ko yàlla moome mu ko moomee li ma jëkk def mooy téléphoné Cheikh Tidiane ndax nag moom moom yëf yi te ay yëfi wolof du ma jàpp maanaam du ci wax ak moom ah kañ ma téléphoné ko jotuma ko waaye jot naa soxnaam ma ni ko wax ko ni ko Cheikh am fi amoon yàlla dogal na ci li ko sob pour wax leen man lu leer rek lay doxal gi nga bi ma ko tàggoo wax ko affaire bi may téléphoné naan ne ko mu ñëw euh, encadré xale yi xamoo su ma ni woon bul dem du ma dem ay mais xalif général li mu wax rek lay def moo ni woon bul dem du ma dem mais heureusement waxuma ko bi sëñ Mansour nelawee ba am ñetti fan mu téléphoné ni nee ko man ko yebal benn délégation ba ñu ñëwee muy Pape Malick ak ñaari doomam ku ñëw Abdourahman ak Alhaji malik ak Pape Malick suñu rak ñu ñëwee ñun ma góor gi daal nee na moom xam nga ni boobu ba tey yaramam moo ko mayul mu génn dafa bëgg nga dem jaalal ko soxna fat si ndax kër gi moom la ci tànnoon comme jigéen jigéenam te taawam ak soxna Ayda Dem moom la ko tuddee kon nag na ngeen dem nga jaalal ko ko dindi dix millions ni ma nee nga joxal ko ko lii addiyaam man duma joxe jaxal jaxal aada rek la ma dem def noonu soxna si faat si ci yiwe yiweem gi ñëpp xam ci moom mu teeru ma teeru ba rafet wax ak man wax yu rafet tabaarakallah boobu boobu te nag ci loolu la ñu nekk mu ni ma ku may dimbale daal na ma dimbale kër gi yëpp ànd nekk benn mun ndax xanaa war naa doy na mu ni ma soixante ans de conflit am na ñoo xam du ñu doyle ndax ci la dund waaye ñun ñu ko yenn nu doyle su ko defee ci loolu la ñu nekk ñoom ñi ku ci nekkul ci dëgg danaa la ko wax soo bañee ma bàyyi la ak sa waaye du te daan la ko te du tax ma bàyyi la na da xam rek wax naa leen ni lii du yoon nga def lii la neex sañ ko ko noonu la nekkee ci kër gi mais bu leen defenti mukk da ngeen am bunt ci yàqkat yi ñu fi mën a jaar ba yàq dara du ñàkk ñu koy jéem ak ñuy wut waaye du ñu dem ndax it am na fu ñu ko takk am na fu ñu ko takk te xamuleen leen ni bu yàggee rek ñun la neex bu yàggee ñun la neex su ko defee kon muy bés bu am solo di bés boo xam ni itam jamono moo koy indi bu ko xasee indi nag kenn du ko ci man dara ndax yàlla lay doon te yàlla nag lu mu dogal dafay am ñu bëgg nag mu nekk rek bésu ñaan ci Sëriñ Mansour ak njabootam bu jotee ñun ñëpp ñu daje fi ñaan fàttaliku lim fi bay ci héritage ci xam-xam ci barke ci leer jàng fi ay kaamil def fi ay dox yónnee ko ko moog ñëm fa tëddal te continuer wax naa leen ñoom ñi keroog neen kaala gi kaala na na jaar ci ndigg li door a ñëw ci bopp bi ñoom ñi waaw balaa kaala gee tegu ci bopp bi na ñëw ci ndigg li parce que am na loo xam ni bàyyi du ko may doom sëriñ du ko may taalibe ku ne yaa koy wutal sa bopp te mooy nga takku rek nag liñ fi bàyyi ci héritage nga teg ci sa bakkan noonu la suñu Mansour si defoon lu mu am moo ko may boppam nekk ci ndigalu suñ kër si di jàngale daara jim ko joxoon mu mu mu teg ca bakkanam bu xëy am adresse bi mu am borom daara ji loolu nag yombul ah yombul waaye fexe na ba am ko su ko defee nag ñu di leen jotal nuyoo xalifa bi comme ni mu ko waxee rek demal nga encadré xale yi bi gàmmu jotee itam te moo ko ni gàmmu Tiwaawan loo ci xalaat mu ni ah dangay ngay seet Serigne Mbaye rek fexeel bu bu réeroo ak moom na ànd ak Pam Malick ñu dem ci jàkk Seydil Hadji Malick yow nga ànd ak Maodo dem ci jàkk Serigne Babacar Sy ñu def ko mu neex taalibe yëpp wala boog taalibe baax bokk su ko defee loolu moo fi nekk man dama fi nekk ak ñoom rek di seen magum taalibe xam nañ ko sax di seen magum taalibe waaye defuma leen ay doom ay mbokk laa leen def lu xew daañu danaa woo cheikh nu toog waxtaane ko te lu nu waxtaane rek dana leer ndax am na jikko yàlla def ci moom mooy ku yaru la ku yaru la ku teey la su nga <laughs> eh, seen maam Babacar si moo ko wax nee na eh, laxasaay gi na jaar ci ndigg li awalan fi sulbihi li yakuna amamatan gadan ala rasihi mu di loo bëgg doon da nga koy wut loo bëgg am da nga koy wut moo tax bi muy ndaw jàng na bi mu nekkee mag am na xam jàngle na bi mu nekkee mag moo tax mu formé ay jàngalekat ñu bari génne ci école boo seetee tey Dakar bari na jàkk ju fa nekk am ilimaan boo ko ne foo génne mu ni ci école Sëñ Mansour Sy mu roye ko ca école maamam Seydil Hadji Malick ba tubaab yu tudde woon aljaamiatu shaabiya Paul Marty bi ko gouvernement français yebale ñu ko demal nga seeti Alaaji Malik moomu ñuy wax ci Tiwaawan lu muy def ba muy demee ñëw daf ñu tubaab yi benn université populaire laa fa fekk mag ñi ngeen di dëkk Sénégal ñu di sol sow ci xam-xam ñëpp ci université Alaaji Malik boobu lañ génn waaye boo demee Dakar bari na fa juma ak jàkk yoo xam ne ña fa nekk yëpp ci université populaire bu Sëñ Mansour si la génn nekk ay boroomi xam-xam di défendre tariqa bi di défendre charia bi mu nekkee nit koo xam ni euh, dafa am lu ma mu sëriñ Babacar Mansour wax keroog sëriñ Mansour bi mu nekkee ndaw nii rek nekk xale lu góor nekk am benn soxna bu ñëwee ñaan ko li ngay daj bu ñu génnee di ko jëw naan góor gi dafa nay waay ndekete boobu dafa amagu responsabilité rek kere bañ ko joxe responsabilité lu mu am rek daf ko joxe du dencal ëllëg dara léegi-léeg si ñu ko ah maraw te ngaa def ndànk rek mu ne ah yàlla baax na lu mu am daf ko joxe place bi ñu toog moo ko laaj sëñ Babacar Si def ni woon ñun post lañu rek yàlla di jaarale mandat nit ñi ci suñu loxo bu nu ko joxee nu jox leen ko fu mu toll mu di nu ko jox bu nu ko joxee nu denc ko mu téye moom itam yëfam sëñ Mansour noonu defen di joxe rek di joxe sëriñ Mbay si keroog ñu toog di waxtaan mun ma sa waa ji daal ndekete eh, liñ ko doon jëwe yëpp dafa jotagul woon rek responsabilité muy sëriñ Cheikh yónnee na ma nangam pour ñoom diw yónnee na ma nangam pour ñoom diw mu ni ma ah ndeketekat moom dafa jotagul woon rek waaye bi mu jotee ma nga ca waaw noonu la sëñ Mansour li Mansour Mbaye wax ci début waxam ni kenn masul toog fàttaliku lu ñaaw lum la def fexe na ba gañe sentiment jullit yépp ci jëfanteem te dañu nit war na bàyyi gannaawam xel ndax il faut ñu waxtaane ko ku tabe woon la Sëñ Mansour xale yi ci kër gi dañu koy nax mu xam ko ko su ma ñëwee mun ma gisal diw ñëw na fi ne day ngénte xam naa ni sax day fen <laughs> man ko waa di jox nga ko ah, nu may def léeg-léeg mun ma diw nee na dafay am ordonnance waaw man li ma jaaxal ordonnance bi dafa màggat ma ne ko marabu dañ lay nax rek xale yi dañ lay nax rek waaye ndeysaan du tee rek mu jox la xam na ni danga koy nax waaye du tee rek mu jox la noonu la ko yàlla bindewoon nekk nag nit ku yaatu dënn mën a boot njaboot waaw mën a boot njaboot bu baax a baax yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla dolli leer fa mu tëdd ah, noonu la nekk woon ak njaboot gi gannaaw cheikh alxaaji malik gannaaw si babacar si gannaaw alxaaji abdul aziz radiallahu anhu ah, boobu taxawaay la amoon ci biir famille si ah, di leen taxaw rek nag nekk itam nit ku yaatu dënn yaatu dënn lool Euh, ñu d'accord ci defal ko bés bi mu nekk anniversaire am waaye kenn du ko tudde anniversaire parce que dafay dellu kon ci màggal nit te loolu lislaam nanguwu ko màggal nit waaw ah, moo tax mag ñi gàttañ lu woon xamoo ni sax Cheikh El Hadj Malick tabaxal ko rëwdu problème la woon ci biir famille si est-ce que war nañ koo tabax wala waruñu koo tabax ngir bañ rek mu nekk bidaa bu nit ñuy roy di jaamu xërëm am na loo xam jaamu xërëm la te jaamu xërëm nag jullit bu ko def rek yàlla rocci loxoom bàyyi la fa loolu moo tax toujours yu mel nii balaa ñu ciy dugg dañu koy seet waaw bu ñu ko seetee nag xam ni mën nañ cee def te du niru ibadatul asnaam wala nekk ibadatul wasaniya ñu teg ko fële ndax boroom loolu rek la doon xeex di ko dawandiku euh, mundu wujudihi fi hada al alam moom Seydi El Hadj su ko defee nag kon bala ñoo jeexal waxtaan wi ñu ngi sant suñu gan ñi bàyyi ko Maroc Abdoul Latif Bakdouri mooy directeur de cabinet bu ministre des affaires religieuses bu Maroc Mohamed Tawfiq mooy ministre ba ci ministre yi gën a mag ci Maroc ca la bokk yàlla dogalit nag suñuy diggante nekk na lu lu lu rafet mag ñoom yàgg na ba ki nga xam ni mooy buur bi sax yu baree bari euh, bala cee dugg dana ni nangam moom mi kazalika dana may wax lu bari ma wax ko ca mu xalaat mu yabal leen biñ ko ko yëgalee ko dañuy def ndax ku soppoon sëñ Mansour la moom buur bi soppoon na ko ndax xam nga sëñ Mansour moom koo gis rek sopp ko ndax dafa lay daal di def mbokk waaw ko soppoon la eh, yàlla dogal li mu dogal waaye wëllëre woowu mi ngi koy sàmm ci ñun di ñëw di teew bërki dem rek la fi jóge ci gàmmu gi te avant gàmmu gi ñëw na fi ñaari yoon buur bi bërki démb rekk booba maa nga Paris mu wax ni dafa bëgg siñante ñun ñun ñu siñante ak le le euh, euh, euh, na mu raam waaw benn contra boo xam ni fu Tijaan di jóge fii ci Afrique te muy tukki yu am solo ñu defal ñu tarif spécial ñu ni ma nag directeur Ram dana ñëw mardi euh, il faut nga ñëw signé teeg moom contrat boobu ma ne man maa ngi Paris di faju bàyyi leen ma seet sëñ kër Sy Mansour moom suñu manee mu ñëw def ko su manul mu yebal sëriñ Bay Abdou Aziz ndax Maodo ngi Paris na man di fayu ma door a téléphone sëriñ Bay wax ko ko ni ko gis naa ambassadeur bi ba noppi demal nga seeti ko dana la wax ni ngeen koy defee sëriñ Bay moom mujj dem siñante ko ak ñoom yooyu yëpp mi ñu koy defal ngir yàlla Seydi Cheikh Ahmed Tidiane ma fa radiallahu taala anhu ko defee ñu sant ko ci ñëw bi mu ñëw fekke si xew-xewi euh, rendre hommage te itam dafa war ku mel ne Sëñ Mansour doo ko am mu jóge ci sa loxo nga bàyyi noonu rek déedéet mu am bis mu am waaye nag ñu teg ko fañ ko war a teg rek ba bu ëllëgee kenn du nu jam wala kenn du nu dab naan ndong sa naan nun ko nun ndong sa nunu la bopp sa su ko defee loolu famille si xayma yëpp ngi ci konda mu nekk nag beneen événement bu am solo mooy fu famille yu Seydil Hadji li nekkoon teew nga tey Tiwaawan ku fi teewul da nga nekk biti réew mbaa nga feebar te yóbbante nga ni ah sama ngànt kat mooy lii man sama njaboot yaay yëpp laa ni dem leen ngeen teewee faaliyaat Euh, organisation bi ñoom ñëpp ñu ngi fi ñaari fi ñëwul te kenn ku ne danga feebar da nga su ko defee muy lu raar nag dajale famille bi yëpp c'est très rare waaye tey am nañ ko loolu nag yàlla bi ci gémmiñ dugg yàlla boole famille bi yëpp bokk xol te jot na nag yenni complexe rek la complexe boobu nag dañu ko war a génne ci suñu biir mais ñu ànd ànd bu rafet ànd bokk ndey bokk bay ànd liggéey ànd taxaw taxawal kër gi taxawal tariqa bi taxawal njaboot gi loolu lu war a war la ñëpp war nañ cee bàyyi xel wax naa ko bërki dem rek kenn ci ñoom may ni ko attention man tey ci mag ñi maag Cheikh Tidiane ñoo fi des Cheikh Tidiane deux ans rek la ma mage man ko man j'ai déjà quatre-vingt-six ans ma ne ko moom mi ngi quatre-vingt-huit ans ma ne ko buñ fi jógee Serigne Mbaye si moo fi nekk ma ne ko kon ànd leen yéen te ngeen jàng <coughs> ma ko ndax li ngeen yore fala fala doxalu ko ah ak ay un truc mais il faut ngeen am xam-xam d'abord ma ni ko war ngeen commencé concerté wu ay ndaw ngeen te ma ni ko tariqa bi ku mu dul sa wujj sa noon la ma ni ko kuy dox sa diggante wujj ak say noon boo defarul sa doxin rek ñu ree la man leen te mag ñi ñoo ko fi indi bàyyi ko fi xanaa duñ ko bàyyi mu yàqu xanaa ko kenn ci ñoom barki bi ma ni ko war ngeen seetaan nu ngeen àndandoo ma ni leen yàlla waxul kenn dara maa ngi nii xaw ma seen cheikh nga ne màggat na man tam màggat na ñu ngi karang-karangi hein ma ko kon taxawaay bu mat sëkk ngeen war a taxaw bañ ko def taxawaayu xëccoog taxawaayu wujjeeg taxawaayu wut xaalis xaalis gis nga Sëñ Babacar moo ma ko waxoon ni ma ku jub ci yéen da am sutura ba ba ngay dee kooku ma garantie la ku jub ci yéen da am sutura ba ba ngay dee te sutura nag moo am solo li si des nag xaalis booy noose rek la xaalis nag du pour noose pour faj soxla la du ko su nag kon yéen itam ngeen téyewaat kër gi yéen ñi ci bokk di waa tariqa bi ndax itam ñun tam léegi leen nu wéet jëw leen ñu njabootu tariqa bi faaleetuñu tariqa bi faaleetuñu kër gi seen bopp lañu nekk te mooy dëgg nag mooy dëgg te bu ngeen tiitee daw ci alaji malik wala ngeen dugg ci ruq bi naa ah, góor gi wax ci kaaw te day faju day faju non dafa am benn magam bu ma wax ni dafa ñëw ci moom Seydi El Hadji mu ni mi ngi amoon benn tànk boo xam ne dagg rek moo ca des tànk yu mag yooyu nga xam mu ni ma fu ma nekk xet kenn du fa mën na nekk su ma bàyyi daal bu mu demee ba Gênes mu bindal ma lettre boole ma ak Cheikh El Hadji ma ñëw jox ko leetar ba mu jàng ko woo góor gi Aline Fall ni ko àndal mag ngóor si waay ci docteur bi nee ñu dem docteur bi ni ko tànk bi puri na dañ koy dagg dama koy defar ay këyitam mu dem ndar ñu daggu ne daal di may defar ay këyit yépp daldi daal di ma bindit benn ordonnance ni dañ ci dañ koy jël ba ba ñu koy dagg dee ko jël ne ñu ñëw ne xanaa Seydi Hadj maa ngi def ma yërëm mu xool ma ne ma wóolu nga ma nekk sa docteur maa ngi koy yow laa gën a wóolu ci yàlla di ni ko yàlla gisuma ko te yow maa ngi lay gis mun ma demal ñibbi mu ma dem ñibbi ñëw sama bàyyi ne ma waaw dangaa demul ndar ma ni ah alaaji maa yi ñëw naa mu ni ma ndax ndax wóolu nga ma nekk sa docteur ma ni ko waaw mu ni ma demal ñibbi sama bàyyi ni ma ah toogal ma doom noonu laa toogee tànk bay dellu gannaaw di dellu gannaaw ba teg ak mun ma dellu gannaaw ba ak waddu mu ni mu xëy ëñ tubéy ji ni ma xoolal mu ngi nii doo ko xàmmeeg bi dara ah, ku mel noonu koy bokk ku mel noonu koy ku ko am war nga xam ni am nga nag la warif atan cheikhul xaaji malik waliyun waaye ku sopp maami Serigne Abdoul Aziz defal nii ñu màggal ko waliyun منار الدين على ورفعة إنارته عمت عموم محمد واي كسب سيو الحاج مالي جفلني نمقلكم إذا نحن جئنا نحوه من تعلم سمع وجدناه سهلا لينا لم يشدد yaa ni sëriñ Alioune Guèye moo la ni dama ñëw ci sa maam Maodo ni ko wër naa daara yu bari lu ma jàngu duggul sama bopp bi daa tëju ne sëriñ Alioune Guèye ni la sëriñ Abdou sama Maodo jël juróomi baaraamam xaj sama kawar ba daj sama deru bopp ne jàng li mu jàng wal ko ci mais ca la ubbeekoo moo tax moo jàngal sëriñ Mansour borom daara ji moo jàngal Seydi Cheikh Ahmed Tidiane si almaktoum elewu yàlla bi moo jàngal sëriñ Abdul Aziz al Amin at Tidiani te sëriñ Abdou ne suñu jàngalee ba noppi suñu ko nee jazakumullahu anna xayran mu ni wax leen ma li ñu daan wax seen maam allamana allahu wa iyakum ilma al adabi wa tuqa kon waman li bi ixraji alxaqaiq naasixan waman li bi tadrasi alkitabi wa musnade waman li bi badli alfiqhi wa nahwi mantiqin bayanin معانيها بديم بمسيدة ومن لي بورش بل جنيدة ولا شعر ومن لي بآداب ودرب المؤدد ومن لي بنجم في النجوم وموسل سيد الحاج مالك يا صل وصلت سيد الحاج مالك يا مصل عروضا سيد الحاج مالك يا مصل سيرة البدر مقودا وملي يا ndeysaan sëñ Aline Gueye radiallahu anhu ñun ñëpp moo ñu jàngal ndax bi sëriñ Cheikh amatul jot nag dama xëy rek góor gi ni ma demal nga seet sa papa Aline wax naa ko ni ko na na ngay ñëw mu di la jàngal may dem nag mu di ma jàngal ci la waxoon nag dafa daan def nag su ma jàngalee ba noppi ma ni ko jazakallahu na xeyran mu ni déedéet su ma la jàngalee tew ba noppi da nga ma يغفر الله العظيم لنا ولكم إذا قلت له ذلك من علمنا الله وإياكم علم التقى والأدب di góor gu doyoon waar moom itam su ko defee kon tabaarakallaahu ñu gërëm ñëpp nag tax itam li ñu leen wax soññerale rek soññ waaye xam ne nii yéen nga ci waaye dafa am lu masoon wax rekk fii ci jàkk ji te booba dafa bëggoon rek taalibe gën a góorgóorlu mu wax leen ni waaw man fii ci réew mi ku fi am werd te mu wir maa la ko jox wala kala ko jox maa ko ko jox mu ni ku fi am lijaasa te mu wér maa la ko jox wala kala ko jox maa ko ko jox mu may gàmm sama gàmm di wéet mu ni mag mu amul lu dul génn dëgg di ko wax ci génn guddi cim at bu sañoon ku mu jaboote daa ko fekk loolu rek la da xam ni Tiwaawan moo mënu ko moo mu leen ko dëkkam la dëkkam la ñu ngi seet même jumaam ju tedd ji boobu ba maa ngi ciy waxtaan ak Serigne Babacar Sy Mansour bu sëñ Mansour nelaweeg léegi pour nu ñu koy songe mu ni waaw waaye il faut ñu am ndigalu Serigne Cheikh ah ma ni ko waaw waaye Serigne Cheikh itam gisoo ko déggu ko dañ koy bind lettre rek ñaan ko bu ñu ci mayee ndigal ah, ñu songu ko am na sax ku ma ci jox àllal nag wax dëgg yàlla jox ma àllal ni ma te bokk sax ci tariqa bi ah bokk sax tariqa bi waaye kër bu sëñ Mansour nerewee rek la ñëw jox ma ni ma dinaa ci def cent cinquante millions naa ko def trois tranches ñëw jox ma benn tranche bu cinquante millions ma jox ko sëñ Babacar Sy Mansour ma ni ko ubbil benn compte def ko ca pour ñaari signature sama bos ak sa bos ci la ñu jëm incha allah mu nekk nag loo xam ni ñu ñëpp ñu bokkaat taxaw nag àdduna bi ku fi am diine wala tariqa war nga ca ngoyaat waaye ngeen yi xew ci àdduna bi ay ñu wax naan ay salif yoonu la du dem di buddi bàmmeelu wëli am na wëliw bu mag bërki dem ci lii bi dañu dem buddi ba meeram génne ko waaw loolu fu mu jëm yu mel noonu yépp nag war na tax ñu gën a fonkaat te gis nga wax naa ko mbokk yu xonq yooyu sa kaw may wax li leen dal lu leen ko teg man leen fonk di diine rek fonk leen diine li ngeen di wax du diine diine ji mag ñee ko yoroon te jox nañ nu ko jox nañ nu ko mënu leen ci dara kon il faut ngeen dellu man leen il faut ngeen dellu seetaat seen bopp su ko defee nag loolu yëpp war na tax kenn ku nekk ci ñun seetaat boppam nafaraat buumu kóllëreem ga mu amoon nag ka ko amal yaa xam sinon dañuy dem ba ñàkk loo xam ni dootuñu ko am te lool nag euh, musiba la ko defee ñu ngi gërëm doomu soxna yëpp gis nañ leen ilimaan grand ilimaan ju Dakar gi Moussa Sam ak ñeneen ci ay ilimaan Thiès alxaaji xalifa kebe ñoom ñëpp gis nañ leen ba puut ba tëngéej ñoom ñëpp ñoo nañu teew ci bés bi bi am solo la itam nag damay wax ni ñett ku ko xeebal nit yaa tooñ ku xeebal nit bésam waaw bés bi bésu njabootu sëñ Mansour la mu jaboote ñu jaboote leen ñu woote ko bu ngeen ñëwul woon du nu neex kon ñu te xam ne nii temps bi léegi dafa dafa gàtt waaye teewul bañ yi ngeen seen yëpp ñëw teew loolu ñu sant leen ci baax waaye nag ngeen dolli taxawaay parce que li ñu gën mu mu gën a am mu gën gën a cher li ñu am mooy lii nu fi dajale diine tariq la ca baaxoon yàlla teg na ki ci loxo Seydina Cheikh Ahmed Tijani radiallahu anhu mu di ko joxanteeg ñamu bokkal jamono ba mu yegsi ci Cheikh Alhaji Umarul Fuuti Seydil Haaji Malik kenn ku ne mu joxe seetal Cheikh Alhaji Umarul Fuuti li mu def rek jihaad c'est Afrique yëpp mu Ahmed Tijani te muy lu wér ci Cheikh Oumar nga ko jëlee moo jox alfahim ma yoro mu jox Seydi El Hadji moo jox Maba Jaxu moo jox André Buri Daado moo jox Sayed Jaxu mi jur ëmma Jaañ daayira doon ci Dakar moo jox góor gi kalom po siise moo jox Galaye Diop moo jox Alfaahi Mayoro moo jox Thierno Samba Abdoulaye Kane ñii ñëpp Cheikh Omar yi seen sëriñ waaw ñoom ñëpp moo leen dugal ci tariqa Cheikh Ahmed Tijani def leen ay muqaddam waaye kam ca tànn muy xalifaam nag mooy Seydi El Hadji Malick moo tax kenn mën ci waaw nga gis liggéey boobu mu liggéey bàyyi ko ci loxo ñi ngi ko bàyyi ba muy dem mu ni alfahima yoro am ndono laa ki kay donni ci sa néeg lay juddu bu juddoo Malick lay tudd su ñëwee nanga ko ko jox ba Seydi Hadj Malick juddu moo tax mu daan wax ni ñett ci benn bés laa ko am xaale cheikhoog jël tariqa bi ak am ndigalal doxal ko si haaji maay ne ñett yooyu ci benn ngoon la ko am boo ko bëggee xam seetal li mu bind rek doo xam kan mooy sedd Hajj Mali nga seet li mu bind doo ci gis fenn fu mu tuddee boppam walla fenn fu mu kañe boppam yoonam sax nekkul ci boppam nit ñi jaar yoon rek moo ko saf dama koy wax benn mbokk barki dafa ma ni waaw ah, yéen daal suñu tari xib wax dëgg yàlla mu ngi avancé nag waaye nag dangeen ngeen ci war a boole xaalis ma ni ko mais xaalis a ngi si ma ni ko Alaaji Malik daf daan bay di commerce nga dafa daan bay di commerce ma ni ko Cheikh na Ahmed Tijaani radiyallahu anhu daf daan bay di commerce ma ni ko te mbay mooy jur commerce commerce mooy jur industrie industrie mooy jur alal ma ni ko koy boole nañ ko ci waaye nag bu bi nag d'accordul nag biñ naan dañ koy fexe dañ koy fexe boobukat baaxul moom su ko defee nag kon ngeen góorgóorlu liggéey te jàpp tariqa bi liggéey parce que euh, bu ñu ko defee rek am fu jaar waaye bu ñu toogee Sénégal yi damay wax ni tappali dunde moo ko gën a liggéey dunde tappali dunde moom tax a tardé moom tax a tardé su ko defee kon ñu gën a takkuwaat ndax ku am lu cher loo xam ni dama wax bërki démb fi ñu doon defee dars ma ni bu ñu amoon beneen tur bu ñu mën a tudde tariqa cheikh bu dul tariqa danañ ko jox tur woowa ndox ëpp na liñ koy jox ran yi nga ko boole it bokku ca waaw su ko defee loolu nag ngeen am ko muy jamaa ni jamaa gën a foore ci gànjar yi ñuy tag noonu la salaatul fàtte gën a foore ci salaatu yi ñuy jàng ngeen góorlu ngeen téewaat ko bañ a topp caaxaan nit yi caaxaan yi ñëw di indi yu bees naan lii lii laa waaw ma dugg fii ma génn fa maa ngi wax léegi benn mbokk ci suuf ma ni diw de xaw ma la waaye doxal fële def lu ko neex dafa nekkoon ci gannaaw dama dem Kaolack suñu kër ñu amoon dafa amoon surtout Alaaji Abdu Kan bu fi ñëwoon di def conférence di weddi naan Alaaji Abdu Kan euh, Seydi Hadj Malick du sëriñam ma ne ko waaw Alaaji Abdou Kan Seydi Hadj Malick bu dul sëriñam lu mu koy wàññi ma ne ko lu mu koy wàññi Alaaji Malick defar ay junni junni alaafun min al muqaddamin yóbbu leen ca yàlla jox ma ne ko bu nekkul sëñ ñu alaaj bi kon lu mu koy wàññi kuy ma ko moom kuyoon la rek ma ne ko su ma demee nag danaa la yónnee première lettre alaaji Malick ak alaaji Abdou Kon te boobu gisee wuñ ma ne ko sëriñ Babacar Si la ko bindloo mu bind ko alaaji Malick ndax alaaji Abdou Kon dafa ne kon taalibi alaaji Malick boo xam ne lu mu am jox ko sama baay dafa ma wax ni dafa am benn jamono benn shérif jóge Maroc wala Algérie ñëw fi mu ni booba crise la dajeel fii ci Sénégal mu ni Maodo ni ko ah Babacar kaay seeti Alaaji Abdu Kan ndax crise bi nii mu deme nit ñi boo leen waxee du ñu am luñ jox shérif bi waaw nee ma dem mu jox ma quinze mille francs ah. ah te booba diggante Dakar ak. Maroc sept cent cinquante francs moo koy paas ne ma dem mu jox ma ko ma ñëw jox ko Maodo mu yeewu shérif bi mu dem rek keneen ñëw mu ne ko ah Alaaji Abdu ko ne fiisas demal rek ne ma dem mu joxaat ma quinze mille francs ma ñëw jox ko samaam mu ñëw mu dem rek am trois mois keneen ñëw mu ni Maodo ni ma ah Babacar bët bëtkat bu rusul toj alajab bi ko mën ñu ko wax dara nañu làmbaatu ñun suñu biir rek ñu dajale ko waaw waaw waaw mu jaaxle jaaxle nag nii daal rus na koo waxaat sëñ Babacar ni ko ah moo fi sus de góor gi ni ko déedéet nañ làmb nit ñi rek ñu làmba làmba làmba làmb mais deux mille sept cent la ñoon mu ni Maodo ni ko <laughs> dellul ci àla jab du kon moo fi sus nee ma dem mu seen ma di ree ne ba mu ñëwee ma wax ko ni ko ah, Maodo dafa amaat beneen gande te réew mi li fi nekk jógo gi fi mu ne mu jógaat jox ma quinze mille francs ni ma boo demee nga wax ko ni ko fii ba déwén ku ñëw rek danaa ko jox lii ci barkeem nag ci barkeem neetal booba mi ngi ak man alaaji malik bindu la ko ni ko nee ko gisee gunu mais may naa ko lépp lu mu bëgg ci tariqa bi na ko jëfe ku mu ci bëgg a may na la may ku mu bëgg a defal lijaasa na la defal ba ba nuy gisee sëñ Babacar bind lettre ba moo ko bind ma ngay wax ca ca teetu lettre ba sax naan ko jotaleel ma sama nuyoo sama mbokk mu ñuy wax Souleymane Saawo waaw waaw Alaaji fi mu jaar li mu def li mu bind ni mu soppe woon yonent bi bind téere bu day ni miim yi nga xam ni benn nit ku xonq ma su koo def waxtuma la nit ku ñuul liggéey li mu liggéey bàyyi ko fi dem bàyyi ko ci loxo Sëriñ Babacar mu teg ci bakkanam daf daan wax ni ñett ba Maodo nelawee dafa woo mag ñëpp mu xadde mu ni ku ci am sa mbubb mu rafet solol yoonu Babacar nekku ci ku ci am sa ceeb bu nin dankal yoonu Babacar nekku ci euh, ku ci am sa fukki dërëm defal sa poche waaye diina jëg tariqa bi ak kër Seydil Hadji Malick man lañ ko dénk ku ci dugal sa loxo te santuma la ko danaa ko dagg tapit waaw di ci soññee ku ko mere loolu nga ko mere bëgg mu woyefal mu bañ moo gën a diir El Hadji fukki yoon ñun ñu ko doon jege noo ko am nekk ci xeex boobu ba jóge fii mu nekk ci loxo Alxaaji Abdul Aziz loolu di seen alal nga xam ni patrimoine la boo xam ni kenn xamul valeur ba nu mu toll ñu jox la ko ngay xooleeg di ñàkk fayda ak ñi la eh, bu leen ko nangu bu leen ko nangu li ci des nag moom waaw wax naa ko benn bokk mën ko Alaaji Malik nee na bëy gétt ngooñ boolewu leen buum moo leen boole bëy ak gétt ngooñ boolewu leen buuma leen boole bu dul buum bay dem gétt desu mu ni addiya corruption la alhadiyatu rishwatun bayna cheikhi wal murid waaw yooyu yëpp mu wax ko leeral ko bind ko bàyyi ko fi dem waaw yow ngay doy di lu koy ngeen di doye de bu bëgg xeeb li ngeen am ñuy wax xaalis xaalis xaalis dara xaalis boobu bari pexe rek te taxu ñu fay ñëw nag xaalis taxu ñu ñëw ci àdduna bi leneen lu ëpp valeur xaalis moo tax ñu ñëw ci àdduna bi te loolu suñ ko defee danañu am xaalis te duñ ca sonn te il faut voir il faut voir mag ñi fi nekkoon mag moo ci dem këram daa fa fekk fanweeri xale lu góor yi mu jubul juru juru leen te moo leen di dundal moo leen di sàng moo leen di jox la mu am hmm? takka leen soxna yooyu yëpp mag ñi ñoo ko daan defal xale yi te xamuñu leen sax yow nga dem ba ñaari doom boo ko amee ñu lëjël la fu ne nga taxaw fay jooy ku ne nga ni ko aw ma lu ma fay suma loyer eh, suñu doy di la lewoon ci tariqa ba tey mi ngi ci su melee noonu rek ñun ñoo doy di ñoo doy di ko defee nag kon ngeen gën ko bàyyiwaat xel gën a takku ngeen ngeen gën a nekk benn ngeen gën a yéeneente jàmm ngeen gën a xam ni li ngeen am dafa am valeur dafa am valeur ko defee yooyu yëpp tabarakallahu occasion la ñi fi nekk maa leen mag maa leen di waxal sëriñ Cheikh mi xalifa bi ma ngi ci néegam tëdd jamono yaram mayu ko mu génn di wax ak yéen man lay yónni ma ñëw wax leen te wax na ma ni sama confiance ak yow amul limite te xam na ni duma dëgg ci pouvoir bi mu am di ko exploiter li ma mën a exploit kenn ku sant si mënu ko exploit moo leen ko tey du ko defe nag kon ngeen gën a góor góorlu gën a jàppaat tariqa bi gën ko fonkaat lañ leen ci wax ngeen di ko def ma benn période salaatul fatiha rek ku ko bëgg a fay cheikh danga ko man da nga ko mën nee na mën na lebal bàkkaar xeetu Muhammad yëpp fa mu jaar yàlla moom cheikh ba mu jox ko loolu mu indi ko di ñu ko jëriñe mu wóor la ni bu ko keneen amoon dala naan bana euh, Seydi Haj Mali mag ñi dañoo dajeeg moom fii ci jàkk ji ñu ko ndax yow su salaatul fatiha bi mook bu Cheikh Umar ñoo bokk mu ni lu tax ngeen laaj ma ko ñu ne ko Cheikh Umar bala la daan may werd dana la nattu yóbbu la jihaad yóbbu la ci tool yi ba sa baqtani bàcc mu door lay may werd ni ko yow nag ku ñëw ñëw rek ñaan nga may ko mu ni boroom saamu jamaa bu bëggee weccanteeg borom saamu buy il faut mu damm prix jaman ba ba mu tolloog bu buy ba ndax boroom man caa am mu leen wolof dañoo yàkkamti te tayal ku leen bëgg a jëriñ ci diine boo ko yombalul ñoo ci koog yow moo tax ma ñaan mag ñi ñu may ma ma yombal ko te du tee mu yëg ca bu Cheikh Omar Ba bu Cheikh na Tijaani bi mu leen waaye ñoo yem képp kooku yërëm nanu kooku yërëm na ba defee nag kon ñu wax leen rek ngeen gën a bàyyi xel adduna kenn moomu ko ko dul yàlla du li nu neex la ci la ciy def li ko neex la ciy def li ko neex la ciy def Eh, xam nga Cheikh Tidiane ko doy waar la dama ko ni cofaan yële doomam dafa ñëw malik ni ma góor gi ne eh, nga defal joxal ko diw lii joxal ko diw lii ko diw lii ma ni ko waaw me ne ko ndax sañ naa wax ci rajo bi nit ñi def ay ñaan génn ay sarax ma ni ko ndax dee dafa bari trop ma ni ko nii ñaa ngi dee rek mu ni ma mu dem wax ko ci ëllëg sa mu téléphoné ma mu ni nee moom day dafa ragal yàlla ni pat ko loo rek la tontu ma loolu daal la ni ma neel si papa Abdou man dama ragal yàlla ah ma ko kon xanaa ñu yem ci suñuy kurus rek foofu rek la yem maanaam waxin la rek moo di moom du ñebe yàlla ba ñu def leen ñaan ndax nangam am waaw mu ne man dama ragal yàlla du ci dugg te daf ma daan wax léeg-léeg ko mu ne waaw ñaan yooyu nag ku ciy dugg léegi yàlla rusuloolu la <laughs> te na dëgg nag su ko defee nag kon ñu nuyuwaat mbooloo mi yëpp waaye plus particulièrement ñu nuyu ixwanana al musriyin al asatiza alladina yuallimuna fi mahadu cheikh alhaaji malik suñu mbokki égyptien yi dañu fi am benn institut islamique mu ngi jàngal xale yi Égypte ñoonu leen yónne pour ñu jàppale ñu ci njàng mi ñoom tam ñu ngi leen di nuyu den ñaanal euh, wafdu xalifa Njaasaan sëriñ Mambu moom itam ñëw na fi alxaaji du sàll bu soxna safiyatu ñu ngi koy nuyu ñëw na fi euh, ah, sina isa waxoon nañ ko nuyu nañ ko ci début ba sina isa lay ah, Mansour si jamil moom moom yëf am de te mi ngi ci woon ci soo ba tey Mansour si jamil dama jàpp ni moom moom yëf su ko defee ñu nuyu leen ñoom ñëpp nuyu waaw gannaaw loolu itam xale yaa ngi sant presse bi yëpp nag ñoom ñëpp ñëw nañu depuis hier ñu ngi fi di taataan li ñuy wax ak li ñuy jëf lii ñu di ko génne ci seeni télévision yi ñu di ko génne ci seeni rajo ñu ni Seydi El Hadji Malick Abdoul Aziz ma nga Dakar France ba tey yaram moom moo gàntal waaye yónnee na fi benn délégation Euh, muy Cheikh Ahmed Tijani Dabbaax ak Seydi maam Alfahim Mayar ak Serigne Babacar Mouhamadul Habib ak Soxna Fatsi ah, ah, mu nga Dakar ah tabarakallah yéen ko yàlla dolli wér umul euh, xayri si cheikh oumar si sëriñ moustapha ñëw ñëpp tabarakallah ñëw lañ kenn desul euh, soxna kinne bu sëriñ cheikh moo nekk man fii ci kër gi moom itam ñëw na pour que àndandoog ñun liggéey bi man ñun ñëpp ko bokk liggéey Seydi Hadji Malick amul daal kenn koo xam ni ci famille bi nga bokk tey sa yaram may la ko te ñëwoo teew ci bésu sëñ Mansour bii waaw soxna kinne bu Serigne Cheikh ndax xam nga Serigne Cheikh ñaari doom yu tudd Fatimata la am bii mi ngi ko tuddee Fatimata si bii taawu Serigne Babacar si bii mu tudde ko soxna Fatou si Mansour mii taawu Alaaji Mansour waaw moo tax ñaari doom yu tudd Fatimata la am waaw kii mu tudde ko taawu Sëñ Babacar kii mu tudd ko taawu Alaaji Mansour waaw wàcc na kay wax dëgg yàlla bàjj bi amee Abdoul Aziz te tudde ñëpp doom tudde wu ma man waaye kii daf may fonto <laughs> mu ne nag mu ne ah soxna si demeen ngeen demeen ngeen tudd ko ñëw nag mu ne ah moom du xanaa damay suñu xanaa bi yoon nag yaa ko moom ka baax na ci de comme man may eh, xawma lanu kër gi booy bi may booy bi di dox yónneenti yeeg waaw yooyu yëpp tubaarkalla nga defee nag ngeen ñaanal nu yàlla nu ñaanal leen yàlla ñaanal leen yàlla yàlla woyofal waaw soxna umu xayri bu Cheikh Alxaj Abdul Aziz moom itam ñëw na teew ñun ñëpp ngi ci mbooloo bi yal leen yàlla fay parce que sama bàyyi daf ni woon ak bokk ñett koy doxal te benn saxu ca kawar ma ak bokk ñett a koy doxal te benn saxu ca saxu ca kawar loxo làmmiñ tànk loxo làmmiñ tànk ne yooyu ñett ñooy doxal ak bokk il faut ngeen waxante ko mbaa ngeen jëfante ko mbaa ngeen doxante ko su ko defee nag kon ñu ngi nuyu ñëpp nuyu suñu mbokki murit yi fi teew yëpp sama murit baa ngi ni moom sama waaye ndeysaan tuddee na ma sax doom yàlla yàlla defar seen lépp yàlla defar Sénégal def fi yiw def fi jàmm euh, lépp lu ñu ragal yàlla buñ ko gis ci njaboot geeg ci réew meeg euh, lépp rek lu mu ci mën a doon yàlla mu baax mi yàlla na ko dogandu ba fel ko mu dem te nun ñu des fi waaw maître bu kunte jàllo ñëwoon na moom itam mu ngi nuyu mbooloo mi yëpp tabarakallahu ñu ngi nuyu Seydi Hadji Mansour Mbaye suñu rakk wala suñu mag ñaari weer kat la ma magee di bëgg a rey nit ñi rek ñaari weer kott kott lañu magante ma naan sa mag ah, ñaari weer di nuyu Hadi Hadi Wadd Hadi ñoo bokk ndey ñoo bokk bay ca Kaolack li mu xam ci li ma xam ci Kaolack ci famille yéeg ci diine yéeg yëpp moo ma koy wax mooy mooy dem tànk ñëw sottil ma <laughs> waaw ñu ngi koy nuyu waaw nuyu suñu goro Papa Diagne la grand seigneur de Dakar ndax jigéenam la euh, alxaaji Malick mu sëñ Mansour di denc muy suñu doom ku ne xam na suñu diggante ak alxaaji Bachir Diagne Bachir ñoo bokk ndey ñoo bokk bay loolu la yàlla doxal suñu diggante nga defee kon ñu ngi koy nuyu waaw euh, ministre Mamou Cissé moom itam mi ngi woon ci mbooloo mi euh, ñu ngi koy nuyu sellal jàngi ni déglu leen kenn ku nekk jàng fatiha te sellal jàngin bi bi ixlaasin wa istihdaar déglu leen sëñ baa ñaan déglu leen su ko defee yéen yëpp seen loxo ngeen dugal ci seen yéene nun ñëpp ñu dugal ko ci yal na yàlla fajal nu sunuy aajo nun ñëpp yàlla nañ ko fi dajawaat déwén te déwén gën a rafet ren ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa barakati na han Tijani sallallahu alayhi wa sallam wa barakati cheikh El Hadj Malick ko defee kon ñu jàng loolu fatiha salatul fatiha ayatul kursi suratul ixlaas te jëbaat ko salatul fatiha li ci des nag ñun xanaa noo koy ciy dugal rek dugalal leen ko ci ci barkeem bismillah yàlla fi yàlla yàggal na ñëpp ne amin yàlla may la gudd fan si yàlla yokk sa wér lii fexe nga ba nun ñëpp incha allah yaa na yéex àjjana la nu jëm ndax soo ñëwul woon li nga wax danaa ñu xam ne safara la nu jëm daanu werante lu tax ñëwul afa mu ne ak lu ko téye yëpp fonxal nga nu ko yàlla yàlla guddal sa fan te yàggal sunu mag sunu xarit Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ñaanal ko yàlla may gudd fan ak wér Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Seydou Mouhamadou Mansour yaag say rek yàlla leen yàlla may gudd fan ak wér li ngeen bëgg yéen ko xam yàlla leen ko yàlla def la béyka du nu ni woon le 30 mars Habib ne du nu woon ci la lépp di mars yal na lépp mars ci sa barke waxuñu barke kenn de sa barke la ñu wax ah, am diine am lislaam bëgg ak mbokk alal daf ko ragal lépp baax rek baax rek si ba la xamee ba tey quatre-vingt-six ans ci lii rek la la xamee wallahi sëriñ def dàngam sëriñ Abdou wax dàngam sëriñ Abdou tas déedéet lii rek amin amin amin si amin allahuma amin si ñu leen amin ku jóg wuy ji aas am say ngërëm waawoon a woote kon nag ku jóg wuy ji aas am say